الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة نغا خامني بروم بات بو ري بي دي فوغلو كات بي موغي تك بتم يي سي سا كاو احسان نك رافتال نيكوتي بوك ني نيب بوك امتي اخ ماسيتي ني جوخو كين تا كين دو خم لوتاخ نخ لو نيو كو راغالي لا ولا لو نيو كاي نيهال لا

muy takk ay parcelles di jaay def ci poosam yow li nga lekk xamoo ko wala bàyyiwoo xel yàlla subhaanahu wa waaye tey dañoo jàpp ni kii ko war ki ko joxe ak bi mu ko joxe ak ki mu ko jox ci anam yu lëndëm yi kenn ci ñoom doxalu ci njub kenn ci ñoom doxalu ci dëgg kenn rafetlu ci digganteem ak nit ñi kenn rafetlu ci digganteem ak boroomam te kat sa diggante ak sa boroom moomu mi nga xam ne moom mooy borom suuf si moom dong nag waaye ku gorul ab àll dëkke woo fa lu dul yor sa xaalis ak i këyit mu mel nii rek réewu ndaw mii cent quatre-vingt-dix-sept mille kilomètres carrés mu mel ni dañ ko bëgg a séddoo rek ku nekk dem sa yoon kii cinq cent hectares kii mille hectares kii dix mille hectares ba ci waa bitim réew sax te kat dañ ko fay gaare rek mais la terre appartient à ceux qui la travaillent suuf ñu koy liggéey ñoo ko moom te ki jóge bitim réew moom warula am suuf bu am këyit ci turam ndax ganda dul tabax fenn xëy yow ñu génn la ci sa même réew loolu rekk ko indi lan moo fi des nag bu fekkee yépp def nañ ko noonu te lii yu xew la rekk yàggul ndax du ñu ragal yàlla mais ñun ndax dañu dul ragal yàlla ci suuf si ana yàlla ak suñu diggante ak ci suuf si ndax du ñu indi ragal yàlla teg ko suñu diggante ak alal teg ko suñu diggante ak suuf si wala dañ koo fàtte ci mbir yi li wóor daal te wóor mooy ñépp xam nañ ko amul kenn amul kenn kuy dee di yóbbaale benn morso suuf mbaa ngay yóbbu njëgg nga xam nga ko jaay woon amul kenn allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulilahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila ñu ngi dellu di leen sant tey ñaan yàlla yàlla bu mu nekk suñu mujj tabaski di ziara Serigne Cheikh Omar Ndiour di xalifa tafsir Momar Ndiour yàlla na yàlla yokk euh, ngëneelam ak njabootam yépp nag ñu gën a jàpp tey ci xutba imam dafa am solo mooy euh, la question foncière donc wax na si si yorin bi ñu war a yoree suuf si donc je pense que ni lolu état du Sénégal ñu ci dox ay jéego mais nak yoy yep dañ leen di di gën a ñaax ci nu mu gën a gaawee ndaxte euh, suuf si askan bi ñep ñoko bok donc dafa wara a nekk partage équitable mais aussi askan bi war ci si gis seen bopp donc dal lolu la ñuy ñaax euh, sunu nu autorités yi ñu sauvegarder suñu souf si.